ratanga yëngu na hee ratanga ngi dund yee Korsa bàyyil assistant waayi xanaa di nga rusa profito ci deewu Aminata gi nag
dinaa ko porter plainte moom ak centre bi
sëñ bi man comprendre naa la yow sax da nga war a jéem a xam li xew dëgg-dëgg.
Korsa bu ma soxlaa sa xalaat dinaa la ko laaj dégg nga dellul faj say malade.
sama xarit man maa ngi taal sama rajo ngir déglu bàjjen mi ñu nar a nettali lii xew ci centre de santé Ratanga ci biir seen série c'est la vie waaye ana ku doof
lii mbir la de
C'est la vie, puis tu l'attends. Aïe, yek singera tanga. Asitan chira tanga, korsa chira tanga. Pajenete linyo gondura tanga. Fagaru. Morgan Fajo, Sowel Kuyara. Morgan Fajo, Saito Kocha Bomuita. Morgan Fajo, Fagaro Wanganapo. Morgan Fajo.
juróomeelu épisode ëmb bu bette
suba tey jii comme suba yëpp centre de santé bu Ratanga dafa xumb lool malaat yi accompagnant yi liggéeykat yi rawatina Korsa wala Korsaas ni ñu koy jëwe moom mi tudde boppam sage femme Ratanga bi wóor ak naqaree nekkal centre bi yëpp xam nañu loolu Ratanga yëpp xam nañu loolu dafay trafiqué ci biir hôpital bi di laaj malaat yi ak ñi seeni mbokk xaalis ay fan a ngi nii centre de santé bu Ratanga am ay jafe-jafe yu tar waa koñ bi dem nañu bëggam ni ñi fiy liggéeye ay cuude lañu waaye ba Aminata dee ci loxo assistant ba léegi Korsa ci mbégte la nekk li muy xaar rek ñu ne ko assistant démissionné na ndax fu mu toll ñu ngi koy fàttali ni yaa rey Aminata fan yii assistant amul jàmm ci boppam Aminata lay gis saa yu nekk Korsa toppatewul loolu seytaane rekk a tax ba mu dem kër Aminata ñu ni yee da koy jaale ji te kat xamu ko fexe na daal ba xam fu mu dëkk fa la profitoo nag yàq deru assistant siiwal fa ni réew ma mu jóge dafa def erreur médicale ba moo ko fa jële waa quartier bépp jot ci wax ci assistant sonn na Ratanga tey yeewoo na bis bu bees
gaaw leen xale yi gaaw leen gaaw leen gaaw leen gaaw leen gaaw leen tardé nañu maa ngi war a déposer sira seen raq avant may liggéey entre parenthèse balaa ngeen di dugg bal leen ma démb li ma leen yuuxu nag man de yaay merewuma la merci Caro man de mere naa la astu sama taaw bi bul ma mere defal ni Caro bal leen ma dootul am wax naa leen boo leen déggatee seen papa di yuuxu bu leen dugg si biir néeg bi waaw yaay waxoon na ko waa léegi nag foon leen ma balaa ngeen di dugg ci école bi allez Caro
non bisuwuma la Ast kon da nga ma mere dëgg ngoon ñu waxtaan si à ce soir bonne journée maman tey da nga rafet yaay merci Caro dugg leen nag dugg leen dugg leen dugg leen
tey suba teel laa ñëw pour réparer buntu buvette bi menuisier bi moom dafa tardé waaye client yi ñu ngi fi accompagnant malade yi fanaan ci kuru centre de santé bi ñu ngi xaar ma teg taabal yi ci buntu buvette bi lu guddi gi yàgg yàgg jant dina fenk mooy sama gis-gis di sama dund xaaral sax ma def lu gaaw bala sage-femme yi di yegsi su ma yéex rekk client yi di ma song bi may ñëw ci centre bi laa gis benn waay buy dóor jabaram ci mbedd mi kenn àttewul waaye man de sama fit laa takk jàppale ndaw si ba mu bàyyi kenn mësu koo gis dóor sa jabar taw lu tax nii rek ngeen di def booy xef daal sa boutique tëj
bonjour Badiane
noo fanaane maga tey dangaa tardé lu xew
dara Badiane dama nelawul rek karo ak astu laa doon déposé école waa naka xale yi maga sa kanam gi neexul dara
sibiru moo may yoot xam naa ndax sama yaram dafa tëccu caay ma benn poowu karité ma maase wu si guddi loolu lu baax la waaye comme yaa ngi ci centre bi demal consultation benn yoon duma médecin Ah, demal gis yaay ni ko maa leen boole jaru ko dina baax tardé naa te sama patron neexul deret boo demee ma ngay yuuxu bu ma àggee si beer ba
Magaar soo amul wér gi yaram doo mën a toppatoo sa doomi jigéen yi nga am xam naa ne sax te léegi lay dimbali waaye yaa yore liggéeyu kër ga yëpp am déet Badiane adduna yombul de
maa ko gën a xam ñëpp doom waaye jàpp bu dëgër rekk jàpp walla bàyyi ah man de mooy sama gis-gisu àddina Euh, naka liggéey ba ca sibeer ba
sama patron ak a mën a yuuxu hey Magar tardé rek du nii laay amee bénéfice lii ban façon maquillage la sa kanam gii mooy dàq client yi temps yi léegi sibeer bi daanu su dul liggéey bi bàjjan damay toog sa kër ga te loolu laay bañ amuma diplôme bu mag pour def beneen métier tulli war na laa mën a dimbali nga def formation ndax sa jàng xaw naa sori
tulli ay boo xamoon bàjjan boo xamoon Magaar su ma xamoon lan bëgg laa jàppale bàjjan bàyyil mu sedd moo gën sama nekk ak tulli tamit beneen histoire la ah histoire mbëggeel xanaa
histoire soo xamoon bàjjan astu sama taaw daf ma mere ndax li ma leen yuuxu biig si guddi bi tulli meree moom ak raqam dañu daw di seetaan lu xew
lu tax nga yuuxu xale yi Magaar duma ko tey bàjjan pourtant waxoon naa leen ne dootul am àdduna yombul
Magaar yow sa xel mi nekk fi de wala da ngay gént bëccëg haadu dara li am sama kër laay xalaat rekk foog ma waxtaan ak xale yi guddi Magaar du lu garaaw mbaa maa yaakaar ni mën nga maa war a wax lu la naqari
merci bàjjan
waaw bu beneen yoon doom ah dund ak góor ñi dafa metti de
magaar ku saf xorom la waaye nit ku nekk dina am bés xolam naqari xawma lu mu doon xalaat sànq waaye du lu neex foo romb ci ratanga wax ji benn la yow dégg naa lii yaakaar naa lee wax ju teguwul fenn xaw ma kan de waaye Korsa moom deful dara ngir wax ju seet Korsa looy def fii doo laqatu avertir ma bala ngay ñëw ci sama boxu Ah, waaw waaw ndax yow jaaykatu ticket bi danga am assistant bu lay jëlal say rendez-vous xam naa Ah, tegal fi sama xaalis waxal nànk Korsa waxal nànk jox ma sama xaalisu kit d'accouchement yi nga ma jaayal ci semaine bi laa wax
am
vingt-cinq mille juróomi junni rek affaire yi doxul temps yi il faut mën na bëtu mënuma dem ci ku nekk ne damay jaay kit d'accouchement ah Korsa faw ma def lu wóor faw ma def lu wóor ma ne loolu sa affaire la yow te bu ma jéem sax turiyande jaayal li ci des gaaw maa ngi dellu si waat léegi jël si sama xaalis bi des business business rek la damaa soxla xaalis baax na baax na Korsa gis nga damaa mujjee tëj gise bi ngir malade ñi bañ ñoo gis ñu ngi kaas noonu hé tey leen minute damay dem toilette hôpital bii liggéeyuñu cuune ak tayal lañu def surtout ma waa ji di jaay ticket yi dafa yéex te day tëj rek ay waay man dama am urgence man lii normalul te it am na malade yoo xam ne dañuy dugg directement ci biir box sax du yoon mu bàyyi ñu ci naaj wii naan day def xaw ma lan man dinaa ko wax kilifa yi ci kaw du dëgg du yoon muy tëj guichet bi saa yu ko neexee bañ a toppatoo malade yi ni dee ngi bëgg a jot ma gaawtu sax bala añkat yi di ñëw sama client yi bu ñuy añ di laaj attaaya ñenn ñi fii la ñuy noppalikoo tuuti ay ramatu looy def seet yi sama bivette mais bàjjen xam ni namoon nga ma rek moo tax ma dox dox bu sew namm la namm bu ngande mi si boppam laa la wax
dëgg la waaye tey sama xol neexul dama demoon jaale ji kër ñoom Aminata tey ratanga ñëpp dëj bi la ñuy waxtaane fa laa jaar ci suba teel soog a xëy nga ne ma yow kon fajaru nga di léegi nag léegi nag lan li ma jàpp mooy Aminata biñ koy jox jëkkëram matu la sëy jëkkëram ju màggat ji reykatu nit la ndax moo ko teree ñëw ci centre bi def si ay visitam
am na daal ñu naan assistant moo nekkul professionnel ndax Korsa nee na ko na ko évacuer ba taay mu bañ.
yow ku la ko wax.
ku ma wax lan.
li nga wax léegi.
bàjjen man waxuma dara de.
Ramatu yàbbil wax jooju lii moom metti na ma lool assistant jàmbaar dëgg la te bés bu nekk mi ngi xeex ngir faj maladie nu mu gën a baaxe sansé lu sampu. moo jafe rek ak Korsa mii dëkk di yàq derem ci malaat yi aada ju sax ku ko buddi dese ndigg d'accord taluma ay ndigg man wallaay bàjjen
ramatu kële du Emma de
moom la sax de xaama dem ci moom jàppale ko dafa mel ni ku feebar
ndeysaan Emma de lu muy liggéey dafa bari day rokk ba gàddu àq Emma de bàjjen lu la dal dara damay miir rek ma ni naa ñëw hôpital
kon demal ci biir looy xaar
bàyyi ma jàpp la egg nga presque coppi waaw ramatu gaaw leen ndeysaan
soxna si bul déglu fenkat yi ci ratanga yi dara jotul sa bébé bi mi ngi ci jàmm dellu si rendez-vous bi te nga ñëw ma consulter la.
Kosa du ma dee wóor na.
eh bu leen maree ak seen jàmbati waay lu ngeen deewee ni Aminata yéen ñëpp waaye li ma leer mooy bés a ngi ñëw yéen ñëpp ay dee waay demal waay. lu mu tuuti tuuti kii mooy cinquième personne bi may wax affaire ñaaw njort. jigéen yaa ñi gën a daw centre bi ndax deewu Aminata gii.
Korsa malade bu dee dafa metti nag.
non mais fii xanaa man rek maa fi ànd ak sama sago mel na ratangaa dee ma su fay am jigéen ju dee ci ëmb lu bees la fi.
beesu fi de warul tax ba du la metti.
eh yow amoo loo ma jàngal lépp sa faute la yaay ndeyu mbilli ji.
mais Korsa du sama faute yow yaa ma bañoon a dimbali ma faj Aminata.
mefe doy na wax naa la sama xalaat nga dëgër bopp def yëfi cuune ku nekk ak say malade boo yaakaaree ma yërëm la perte nga assistant yow dara mënatoo koo def di làqatu ci ginnaaw docteur ñu laay rek gis nga Korsa bàyyil màndi màndilu bi nit bu ñàkkee bakkanam dafay metti képp ku am xol rawatina ñun fajkat yi
bu dee mënoo gérer loolu ak sa njàng mu bari bi yépp kon cuune nga un point tre àdduna du fi yem dëgërlu rekk
en tout cas def naa li professionnel war a def boole ko ak woote jàppalante wante wuyu woo ma yow sax au lieu ñuy jooy fii lu ñu war a def mooy fexe ba benn màgget dootul takk ab xale bu juddoogul ba muy dee ci sëy wax ci sax doy na benn malaata nga agsi baax na
Emma de am nga invitation waaw Korsa jaabante naa ñaari yoon kër ga moo tax ma sonn nii
ma papier yi nga yor baax na tey moom taluma bind ak jubbanti ay këyit jël naa sa deret demal xaar résultat yi ci couloir bi assistant sage-femme bu bees bi dina fa jaar jox la ko
Emade man la ah d'accord ma sol sama blouse ñëw jox la sa résultat analyse yi ah D'accord.
d'accord pour le moment kay dugg ci salle bi nga xaar ma dégg nga ah Emade am naa xibaar bu neex da nga ëmb ah lu xew dafa mel ni xibaar bi neexu la de si si mais foog ma gis taala sama jëkkër man mën naa woo taala su la neexee non je préfère waxal ko ko sama bopp d'accord sa sañ-sañ la waaye saa yu la neexee jaaral seet si ma ndax di nga noppalu am nga yeneen doom abu doom ju góor ñaata at la am fer na ak beneen doom bu jigéen aussi bu am huit mois buy nàmp
yow xanaa doo jël contraception Emade bul fàtte toppatoo sa bopp de loolu mooy li ëpp solo tey
man man rek maa nekk ak sama jëkkër yor famille te amuñu doole
metti na waaye toppatool sa wérgu yaram
ndax yaa may consulter waat su ma fi dellusee su ma nekkee service moom dinaa ci sawar lool am sama numéro pour saa yoo ma soxlaa dégg nga merci
waaw Emma de ani xale yi bàjjan ñu ngi kër ga man sax maa ngi dem ndax ñoom rek laa fa bàyyi
Emma de looy taxawaalu ci centre bi ay ca ñibbil
bàjjen maa ngi dem ay ca ñibbil laa wax
eh Rokoba bàyyi ko tout tranquille gisoo ni kii dafa feebar dara jotu ko dinaa ko wutal wujj de
madame Rokoba ci centre de santé nga nekk Emma de dafa soxla repos dafa ëmb encore lan ëmb lu nekk dina ko inventé fenkat bi kër ga laa wax nagaaw ay ko laa wax kër ga acca nagaaw
alors Magar kon yaa ngi gisante waat ak Moulay
non tulli dama tase ak moom rek par hasard Magar sama jabar nga amuloo pour wax ak moom on est bien d'accord tulli leer na kay sama jëkkër nga da ngay fen da ngay farantu léegi mais loo may sosal nii bëggatuma laa gis nga yëngal ay taat ci kanamu Moulay dégg nga mais tais-toi lu tax lu ma la tere rek nga def ko ah lu tax lu ma la tere rek nga def ko ma fonton ah ay tulli yàgg may gaañ xam nga bëggatuma laa dóor toogal s'il te plaît alors lu tax toujours ngay def lu may merloo tulli yaa ngi may gaañ toogal s'il te plaît doo ma wax lu may defan
ay ay tulli toogal ay
papa eh génn leen fii xale yi dem leen tëdde
xarit yi bu ñenn ñi mel ni Korsa di xeex ngir des ci seen bërëbu liggéeykaay yenn jigéen ay dóor moo leen sonal am déet Magar da ngay farantu léegi mais loo may sosal nii bëggatuma laa gis nga yëngal ay taat ci kanamu Moulay dégg nga nooy def ba génn ci lii Magar ba génn ci safara si nga nekk Emma de moom tamit nu mu nar a def ak ëmbam ak rokoba gorom bu lakkale bi man maa ngi xaar épisode bi di ñëw ci C'est la vie à Ratanga def leen ni man C'est la vie di théâtre rajo bu leen raes jagleel ki ko tëggaat te jiite artistes yi di Massamba Gueye ki def réalisation te tataan kàddu yi di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events